Euh, Serigne Cheikh nag ku bëgg xam-xam la nit ku yaru la ku bëgg xam-xam la nit ku yaru la nit la koo xam ne kii lépp lu xeetoog yàq du ca nangoo dugg dañoo am bés ma jëli ko cinéma la Paris xam nga mu ko bëggoon cinéma la di seetaan parce que yooyu yëpp da koy jox njàngam ak li ko promettre ci àdduna lu bëgg def mën ko xam-xam dé du faalewu ko sax waaye ma xuloog benn alkaati nag xam nga man jóob laa dof jóob lay sant ma xuloog benn alkaati mu ñëw ne ma ma faali dama bëgg nag koo jotee joteetel ci àdduna bala maa ñëw na ko arrangé ndax man lu mu dugg rek mu garaw keroog laa ko baax waaw ñu ci noonu ànd ci sutura ak ceraanga ak jàmm ak salaam fii kër gi yàlla xam na ne danoo ànd booba rajo Dakar magane ca ministère de l'intérieur ah, booba rajo bees bi abagul ñiy dem mu jël benn ambulong bu weex teg ko ci sama kanamu oto ma bàyyi ba mu wàcc mu ubbi ambulong ba fekk ca fukki junni ca booba jamono booba Ndakaaru du léegi de ma ne ko ah, sëriñ bi nag man mu naa ma ne ko boobu maa ngi luyee ci kër benn jigéen bu ñuy wax yaay foo yaay footi moo di moo di sow ku gëmoon sëñ kër bëgg ko la bëgg ma lool ndax gëm ne maa ngi ànd ak sëriñ Cheikh maa ngi bëgg Tiwaawan maa ngi bëgg Alaaji Malick maa ngi bëgg sëñ kër mu bëggee ma loolu ma ne ko nag ñàkk fay luyaas moom du ci bokk <laughs> lu ne nag man nga ma ko def waaye ma ne ma damay fay ñi nekk ci loolu nekk ci loolu nekk ci loolu soxna sa soxna su baax di soxna su nekkoon ak soxna astukan moom yaayam soxna astukan waliyu la mën naa ko seede de parce que Serigne Cheikh moom wax ci làmmiñam ma sëy yi da koy tari moom soxna astukan te it bi mu feebaree nekk fii ci cardiologie ci hôpital la daan teg boobu ñu ngi daan taxaw foofu ci cathédrale maag Serigne bi ba après ñu dem hôpital mu ne ko yéen xanaa xamu leen ne ñi dem bés rek mu ne ko waaw ah, yéen xanaa xamu leen ne su ngeen bëggee ma dee da ngeen ma yóbbu Tiwaawan man du ma dee fii de yóbbu leen ma Tiwaawan moom soxna Astu Kan bañ ko yóbboo Tiwaawan ci la door a génn àdduna di jigéen ju baax bés ma ànd ak Serigne Cheikh fekk ko ca kër tante ami ca bopp ma gaare sama oto sëriñ bi am ko ko téye ci biti man ma jëkkoo dugg dem na soxna si mu ne man sa waa ji ma ne ko amuñ ah, ci biti de dafa am ko fa ma ah, waxoon naa ko mu ubbi buntam nag teg fa nit bu nit ñëwee di laaj su amee lum la jox jox la bu amul lum la jox kam fa teg wax ak kooku nga dem yooyu yëpp ay éducation la yoo xam ne yi mag ñi dañ ko daan def di ko joxe parce que mag ñi dañu nangu dëgg nag waaw góor gi Babacar Diome Ndiakhère dañu ne ba muy jaayanteeg sëñ baaba Babacar radiyallahu taala daf ne ko lenn rek laa lay ñaan sëñ kër mu ne ko bu ma jànni ci biir booloo sëñ Babacar daal di jël kaalaam gu tedd ga daal di jël euh, def ko nii ci kiyam daal di muuñ daal di na ah taalibe buy jaayante ay sart am na solo xam nga yooyu yëpp dafa bokk ci am dignité parce que surga baaxul sëñ Cheikh da ko daan bañ dafa ne bëgguma surga koo xam ne kii loo def mu ne uhu loo def rek mu mu apprivé ko nee na kooku du àndandoo moom loolu da ko daan bañ totalement xale yi ci kër gi nanguwul sax ku dugg këram def yaramu neen ndax mbaax boo dee def yaramu neen bu ubbee palanteer bi gis rek ne la génnal sama kër yooyu yëpp da ko daan bañ mu ne ma ci làmmiñam képp ku sàcc bu leen ma ko wax képp kuy jaay dorog bu leen ma ko wax ndax man dama war a jubal nit ñi du ma ànd ak ku jubul moo tax man lu bari lu bari rek ci moom laa ko xamee tabaarakallaahu ba nga xam ne lu ma dugg ci këru àdduna dama koy duggee masla mais dama ko duggee force dama ko duggee doole mu nit ko yiw balaa dem këram jàdd ci station essence ñu téléphoneel ma waa kër ga nel maa ngi ñëw ërtel loolu ku jàng ko am xam-xam ku ne xam nga ne sariya da ko digle mu di ko jëfe waaw du forcer dara ba ci Abdou mu ndaw ni Aziz rek la ko daan wax Aziz nañ ma waxal Aziz nangam gàmm yi mu daan dem moo ci daan dem moo ci daan dem ba gàmmu ndar ñëw nag mu ne nag daal man dama bëgg a noppalu affaire gàmm yi daal ne sëñ Abdou na ma demal gàmmu ndar bañ ko wax sëñ nag mukk ndar moom mënu ma la fa <laughs> mu wax mu ne mu dem jaari ci soxna Umu soxna Umu woo sëñ Abdou yàlla xam na ne soxna Umu moo tax sëñ Abdou dem gàmmu ndar ba jël ko ni ko ni ko sëriñ Cheikh ala di ko doxal ba ni mu génn àdduna nii kon eh, yàgg nañ ci kër gi nag kër gi nag këru yàlla la eh, Seydi Hadji Malick lépp da ko tëral ci lu leer mooy jàngale ak yar nit ak jubbanti sa ruu ba nga xam ko yàlla nga xam ne yàlla doo ko jaawale kenn loolu la Seydi Hadji def waaw sëñ Babacar bi mu ñëwee itam moom itam ci loolu la taxaw njabootam yëpp El Hadj Abdou ñoom ñëpp El Hadj Mansour El Hadj Habib ñëpp ci lañ taxaw fa tabaarakallaahu e, ma yebale ko foofu nag ndax e, wax bu ëppee rek dafay am lu mu yàq e, sëriñ bi nag ñu ngi koy ñaanal yàlla fu mu ne ca barsàq yàlla ko yàlla dolli leer ci barke yonent bi texeel ko ndax ñaan kat amul kenn koo xam ne kii waruñoo la ñaanal yàlla bu ne inna allaha wa malaikatu yusalluuna ala nabi yaa yu allazina amanu sallu waaye yàlla du julli ci kenn waaye day ñaanal yonent bi nag sallallahu alayhi sallam boo gisee mu ne ko wallaahu yaxsuka min annaasi ne ko yow soxlawul ngay wut ay garde ñu lay garde maa lay musal waaw moo tax liñ ko fexee lépp dafa nax saay waaw yàlla ku mu sàmm nga am ku la sàmm kon ñu ngi ñaanal njabootam nag ñu fi bàyyi njabootam yëpp bàyyiwuñu kenn ndax ñoom xale yi ñoom ñëpp xam nañu ma la ko dale ci Mansour ba ci Moustapha ba ci ñoom Kiné maa leen daan ànd ak ñoom sëriñ bi di boole ak ñoom ma di leen yóbbu ñuy jàngi loolu ci sa turu sëriñ Cheikh laa ko daan defee samay doom eh, fàttewuma leen maa ngi leen di ñaanal kóllëre ga ma seqoon ak seen pappa maa ngi ñaan yàlla ki eh, ci doxal li ma mën damay dem léeg-léeg ma dem kër ga léeg-léeg ma seeti leen bu ma gisul kenn boo demee dugg ci kër ga rek génnaat dem sama yoon maa ngi sant yàlla yow itam nag Ousmane maa ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla yokk sa sutura yal na yàlla yokk sa teraanga ndax Babacar Kane mii nga nekkal sëñ Ousmane Kane nit ku baax la man. dama mës di bëgg rek kuy wax lu baax te gis nga sëñ Ousmane Kane lépp lu mu mës a gis ci kër Seydi Aji Malick wala kër sëñ Babacar da koy defar ba mu baax loolu laa xam ci moom maa mën naa ko seede parce que fekkee naa bi góor gi génne àdduna mu dajale ñëpp famille bi yëpp ne leen nu ngeen def kër gi ñu ne pat mu ne nu ngeen def kër gi ñu ne pat mu ne nu ngeen def kër gi ñu ne pat mu ne Serigne Mansour fala sa paay fala sa baay tegoon ci daara ji ne fa sëriñ abdu li nga yoroon ci kër sëñ Babacar yor ko fekk sëñ Abdou jóg sax di ba joxe kayit yeeg sëñ euh, Cheikh ak sëñ ne ko ëpp naa def toogal moom sëñ Cheikh nag sëñ Ousmane ne ko yow li la yàlla man loo ci wàllu àdduna nga di ko dox ci lu baax nekkal ci loolu di ci dimbali njaboot gi lii laa laa xam ci moom fa tabaarakallaa ngeen baal maq allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ah mbokk ñu ngi sant yàlla bu baax a baax xam naa ne ku déglu rek di nga xam ne ki doon wax ku xam ki muy waxal la ndax defe naa wax naa ko léegi ci bi ñuy door émission bi dama leen wax ni eh, ku xam seriñ Cheikh xam ni mu nekkoon nit koo xam ne ku discret la ku ko xam-xam ne ni mu fonkee waxtu ku ko xam-xam ne lépp loo xam ne lu lus la du ci dugg kooku nag ku ànd ak moom at yi mu ànd ak moom te mu mën a toog ni yàqaluma ko lenn kooku yi tamit am na lu ko yàlla may ndax it mu ngi noonu kon bu ñu paree ci góor gi sunu yaay ji tamit bu ñu ko mënee may occasion moom it ñu laaj ko mu wax ñu moom it li nga xam ne xam na ko ci Cheikh Ahmed Tidiane Sy yooyu moom lañ koy ñaan incha allahu mu ñambaas ko ci li nga xam ne góor gi wax na ko ndax koo xam ni doom yi ma am yëpp bu dul ñi nga xam ne ñoo ñu ndaw ñi moo ñëw ngénte leen tudd leen fa tabarakallahu kon kon loolu yi tamit lu jar am lu am solo la kon Kéba dañuy tourner fale rek ñu laaj sunu yaay ji émission bi mooy le quinze mooy anniversaire am te nag nit ñi dañuy soxla xam am lu ñu xam ci moom nit ki nag nga xam xam xam ku ko xam defe naa nga laaj ko ko ci ngay gën a xam kan mooy Serigne Cheikh ndax lii ñu dégg ci moom ñu ngi koy doog a dégg ci Serigne Cheikh li ko may nag mooy ku mu nekkoon ak moom ndax ñun eh, dañu dégg rek Serigne Cheikh di wax ne ma faali ba ma jëlee ci suma oto kon li muy tekki mooy moom ku ko wóolu la woon kon nag bu ko defee yooyu ñu am occasion tey ma waxoon sunu caméraman bi ne na tey ak Souleymane nañu ñëw ci góor gi nga xam ne moo doon kon conduiral Serigne Cheikh. ñu laaj ko bu ko defee moom dinañu wax lan la ci xam ah yàlla def nag ki nga xam ne mooy soxna sunu yaay soxna Umu Jóob moom it mu teew fii ñu laaj ko rek moom it mu wax ñu lan la xam ci sunu góor gu tedd googu Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum